oto bii mooy ni Ndeye Khady Ndiaye Ndeye ngi nii si kanam oto bi Ndeye Khady Ndiaye ngi nii ngi noonu Ndeye Khady Ndiaye ngi nii Ndeye Khady Ndiaye ngi noonu comme yow gisee noonu mu ngi noonu oto Ndeye Khady ngi noonu gis ngeen il est 18 heures Ndeye Khady Ndiaye noonu ci oto bi non day baax jàmm rek moo ci mujj jàmm rek jàmm rek moo ci mujj. en suba ba léegi en résumé suba ba léegi tàmbali audition bi. waaw jàmm rek ba waxtu wi nu toll nii la ñuy doog a yeewi soxna Ndeye Khady comme muy propriétaire sa wolof. seen taxawaay rafet na baax dégg nga jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla yàlla kontaan maanaam ngeen ngeen gën a doole Khady Ndiaye ngi noonu dugg ci oto bi moom ak jëkkëram xanaa moom ak jëkkëram ci benn Ford matricule 200 AE TK gis ngeen ko noonu Ndeye Khady Ndiaye ngi noonu dem Ndeye Khady donc ci biir euh, ci biir euh, oto bi mu ngi noonu kon narul def euh, déclaration ay avocat moo si seenaguñ leen mais ndaw si luñ ci mën a jàpp moo nekk ci oto bu gris boobu ginnaaw huit heures de temps yu mu def ci bureau doyen des juges ji li nee na Ford la. oto bi Ford la donc moo nekk noonu Ford bu gris boobu di dem topp nañ ko ba fu mu mën a yem waaye daal lu leer mooy lu leer mooy du def déclaration gisuñu aussi ay avocat am donc euh, doyen nay leer mu ngi ni doyen ndaw si génn na waaw waxul dara de moom lañ doon xaar ci suba ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin comme comme liñ doon bëgg daal am na ñëw na auditionné nañ ko génn na mu ngi dem ñibbi léegi nag ñun li ñuy wax rek fan ñu nekkoon dem fa la ñuy nekk tey dossier bi nañu fexe ba lépp ñu teg ko ci yoon nañ ko teg ci yoon bu ñu bëggee jàmm ci dëkk bi nañ ko teg ci yoon loolu rek mooy indi jàmm Sénégal Ndeye Khady Ndiaye nii du ci dara nañ ko bàyyi mu dellu ci ab liggéeyam jàpp li muy def su ko defee kenn koo xam ne nii am nga problème ak yoon yoon def liggéeyam mais duñ jël intimider Sénégalais yi di leen terroriser duñu am liggéey xale yi liggéeyuñu nar taal dëkk bi ci ay ay ay ay dossiers yoo xam ne dossiers yëpp ay tappale la loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu Ndeye Khady Ndiaye mi ngi nii di ñibbi incha allah taala jàmm rek ci mujj Ousmane Sonko ma nga di liggéey liggéeyam Adji Sarr nañ ko woo ay mbokam teg ko ci yoon atte ko classé dossier bi Sénégal yi dem liggéey jàmm am lu dul loolu jàmm du am wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu